asalaamaaleykum sama mbokk jàngalekat yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam tey dama ñëw pour waxtaan ak yéen d'abord euh, di leen wax ni maa ngi am mbégte ci tournée bi nga xam ni def naa ko ci IA maatam ak IA bu Saint-Louis naam yeggaguma Saint-Louis maa ngi waaj a dem foofu incha allah pour yeggalee sama tournée maa ngi sant euh, jàngalekat yi ma romb yépp ci biir ñaari région yooyu ma lim yaakaaruma woon ni jàngalekat yi amee nañ ni cofeel ci man parce que fépp fu ma dem jàngalekat dañ ma doon xaar am na ay assemblée générale yoo xam ni wala ay réunion yoo xam ne maa ngi ko def ay week-end jàngalekat yi mënoon ni man mënuñu maa rencontre week-end mais waxuñu loolu añandook ñoom ay dimanche yu bari yoo xam ne ci kër yi laa def waxtaan yi añandoo ak jàngalekat yi mën naa cee lim dëkk bu mel ni ngi di loñ nekkandoo ak jàngalekat yi heure bu nekk am na ay réunion yoo xam ne guddi laa ko def ak ñoom dem ci dëkk yu ne fu ma dem ñu tatagal ma teeru ma taxaw saafonte ak man Euh, wax dëgg yàlla wan ma ne am nañ cofeel ci man loolu nag maa ngi leen ciy sant di leen gërëm euh, ndaxte loolu lu sori ci man la ndaxte am na ay zone yoo xam ne mosuma faa dem ay étapes yoo xam ne wax dëgg yàlla macha allah bi ma fa demee découvrir naa fa lu bari jàng naa fa lu bari dëkk yu mel ni ay juude jaabe ay waalaalde ay cubaleel ay bodelaaw dungalaaw ay ngidiloñ dimat gede chantier gede village gàmmaaji saare ay dëkk yu yoo xam ni macha allah fu ma ci dem may gis ni jàngalekat yi amoon nañ mbégte euh, ñëw dalal ma am na ci ay étapes yoo xam ne dañ ma marqué yoo xam ne wax dëgg yàlla maa ngi ci sant di gërëm euh, di wax ni incha allah déglu nañ leen li ngeen ñu wax dugg na suñu nopp te dinañ ci taxaw la ñu mën pour que seen àq ak seen yelleef yi nga xam ne ñu ngi koy salfaañe ñoom nguur gi mu mën a dakk ndaxte fu ma ci mënti dem rek jàngalekat yi dañ naan ma am nañ yaakaar am nañ yaakaar ci yow ndax sa taxawaay rafetlu nañ ko wax dëgg yàlla ñu bari ci yéen ñëw rejoindre sama syndicat adhéré massivement ci sama syndicat loolu aussi lu sori ci man la ndaxte nag jàngalekat yi kenn moomu leen fii mën nañ fee def discours tappale waaye am na yoo xam ne du jàll ndaxte nag man ku ma xam-xam ni syndicalisme may def nii mosuma cee jóg mooy syndicalisme boo xam ni da ngay xeexal école bi di xeexal yeneen pàcc yi lépp loo jàpp ni baax na pour réew mi nga taxaw ci xeex ci li nga mën fexe ba jàngalekat yi gën a nekk ci conditions yu baax école yi gën a nekk ci condition yu baax lii moom mooy taxawaayu syndicaliste boo xam ni xam na boppam ndaxte depuis 1960 ay syndicalistes jaar nañ Sénégal amul benn syndicaliste boo xam ne si marqué nga l'histoire boo xam ne da nga ñëw rek taxaw ni man ci njàng mi rek laay wax lépp loo xam ne mi ngi ci réew mi te baax nga teg ci sa loxo mu dem lépp loo xam ne jàpp nga ni baaxul ci réew mi nga taxaw ni d'accord loolu la fi ñu nu fi jiitu def man mii syndicat bi ma mos a bokk may fàttaliku en 2000 en 2008 2009 ba jàpp 2011 bi ñu demee ba nga xam ni gis nañ ni wax dëgg yàlla nguur gi fi nekkoon muy nguuru président Ablaye Wade taxaw na fi doon jaay doole dañ doon taxaw ñun ci syndicat bi ma bokkoon ni duñu ñu d'accord ci ñuy salfaañi ak ak yelleefu sénégalais yi taxaw également ci ak ak yelleefu jàngalekat yi kon lekkool ne pas un mayon isolé de la société kon lépp lu xew ci école bi moom moo xew ci askan wi lépp lu xew ci askan wi dafa intéressé école bi kon mënuñu taxaw ci réew mi ñun jàngalekat yi ne suñu yoon nekkul ci réew mi parce que réew du doxee noonu surtout que ñun ñooy intellectuels yi ñun ñoo war a taxawu sénégalais yi kon loolu moo tax sama liggéey ci lool laa ko teg taxaw ci dëgg duma def benn par parparloo waaye di taxaw di xeexal senegal di xeexal jàngalekat yi di xeexal liggéeykat yi de manière générale di xeexal sénégalais yi ci boor bu ñu mën a féete ndaxte fii ci sama bureau bi sénégalais bu nekk dafay ñëw jébbal ay jafe-jafe ñu ci taxaw ndax yaakaar dafa foor bu ñu jaayee doole impacté terre bi nga taxaw bu ñu jaayee doole liggéeykatu université bi nga taxaw bu ñu jaayee doole keneen nga taxaw parce que loolu moom mooy rôle un leader d'opinion kon nag ñoo ngi sant yàlla bi jàngalekat yu bëri comprendre loolu nangul ñu loolu xam ne suñu taxaw ay réew mi rek moo nu ñor jàngalekat yi nag ku ne xam na ni seeni jafe-jafe bari na te ñun Cusems authentique ci jafe-jafe yi rek la ñuy taxaw pour xool nun ci wute ay saafara jafe-jafe yi nag naam mënuñoo lim yépp mais yi ci gën a siiw ñun sunu syndicat ñu ngi ci taxaw di ci xeex li ñu mën bi nga xam ne moom mooy njombe bi gën a rëy ci njàng meeg njàngale mi actuellement mooy li ñu tuddee kooru décisionnaires yi wala agent non fonctionnaires yi guleet ngay gis am réew moo xam ni dañuy am ab ministère bu ñu tuddee fonction publique maanaam ña fa nekk ñëpp di ay fonctionnaire ba noppi ca biir seen biir ñu man faa tuddee ay li mu jàngalekat ay agent non fonctionnaire ñun leen jàpp mooy loolu ay tappale moo ko lal ñun ñëpp ñiy liggéey fonction publique nous sommes des fonctionnaires de l'État kon nekk fi di bot di ay jàngalekat tudde leen ay agent non fonctionnaire ak ay décisionnaire teguwul ci dëgg moo tax ñun dañuy xeex pour ñu supprimer le corps décisionnaires ñu verser tous les décisionnaires dans le corps des fonctionnaires ba noppi nag ñu réformer euh, le fonds national de retraite lépp li nga xam ne ñoom décisionnaires yi versé woon nañ ko au niveau de l'IPRES ñu jël xaalis booba ñoom état bi ñu saytu ko ak technicien ministère des finances yi ñu xool li nga xam ni moom moo ca manqué ci li euh, décisionnaires yi doon cotiser au niveau de fonds euh, au niveau de les l'IPRES état bi jël xaalis bu mu ci dolli pour compléter cotisation seen euh, cotisation sociale yi bu ko defee ñu mën a verser seen xaalis yépp ci fonds national de retraite ginnaaw bi ñu leen reverser ñoom ñépp ku ci nekk ñu jox la statut bi nga xam ne moom nga mérité ci biir fonction publique bi loolu lu ñuy xaar la ci nu mu gën a gaawee ñu bàyyi seen tappale bi ak yeexal bi ba noppi nag ñu profitoo ci bi ñu reverser tous les décisionnaires dans le corps des fonctionnaires ñu fexe ñoom état bi ba euh, fonds national de retraite bi ñu mën ko réformer réformer bi mooy d'abord ñu augmenter lage de la retraite à soixante-cinq ans avec une possibilité euh, de faire deux vitesses mooy soixante-trois ans obligatoire deux ans optionnels mais à partir de 60 ans jàngalekat yi nga xam ne at àgg nañ ci limu at yooyu bu ñu xasee am 60 ans rek ñu dugal leen dans l' encadrement parce que xale yi nga xam ñoo ngi doog a dugg ci njàng meeg njàngale mi dañu soxla ñu leen di encadrer pour que formation continue bi gën a dëgër bu ko defee ñoom seen expérience bi ñu am ñu mën leen koo jébbal loolu dina permettre ñu régler au moins injustice yi ñu dundoon ñoom jàngalekat yi ci lenteur administrative yi parce que lenteur administrative yi teguwul ci dëgg kon nag loolu dina tax. ñu mën a permettre à beaucoup d' enseignants de plafonner parce que ñu bëri ñi ngi dem retraité duñu plafonner kon nag nañ supprimer le corps des décisionnaires yokk âge de la retraite à 65 ans mais à partir de 60 ans ñu verse leen dans l' encadrement mais 63 ans obligatoire 2 ans optionnel loolu mun nañ ko def ñu jël seen i cotisation également yi nga moo nekk IPRES ñu verser ko dans le fonds national de retraite te fonds national de retraite boobu tamit ñu réformer ko ñu créer ce qu'on appelle une agence autonome capable de fair des placements au niveau de la bourse c'est-à-dire ñu injecter les cotisations sociale yu liggéeykat yi dans le secteur de l'économie pour mu mën a générer de revenus ba nga xam di nga am ay retraités yoo xam si dañ leen di fay lu gën a baax parce que retraités yi tamit bu ñu demee toujours dañuy sonn kon loolu réforme bu mag la boo xam ni war nañ ko mun def ci njàng meeg njàngale bi ci réforme yi nga xam ne moom lañ war a def également ñun li ñu gëm mooy réformer continue réforme continue nag mooy njàngum Sénégal ñëpp xam nañ ne li jàng nii dafa xeewi lu bari ci li ñuy jàng tamit amul benn njariñ jàngalekat boo toogal ci discipline bu mu mën a doon dan la am na lu bari loo xam maa ngi koy jàngale mais man xam naa ñu dindi ko moo gën am na loo xam ne mënoon nañ ko cay yokk kon nañ déglu jàngalekat yi ñu def ay lël yoo xam ne dañuy def ay coppite ci ni nga xam ne moom mooy moom mooy programme scolaire yi parce que programme yi lu ci ëpp jaratula jàngale et yu bëri war nañ ko ci indi ñu def également une réforme au niveau une réforme stratégique au niveau de la langue parce que la langue d'apprentissage à la première étape réew yi am système éducatif yu baax yépp d'accord nañ ni langue boobu dafa war a nekk la langue matricielle mooy langue bi nga xam moom la xale bi di lakk ca këram moom la ñu war di ko dalale baa bu paree nag mu doog a jàng yeneen lakk yi nga xam ni moom la ñu am ci réew mi Sénégal sax ginnaaw français ak anglais ak ay espagnol ak ay euh, portugais ak ay italien ak yenn langues yi nga xam ne ak ay allemand langues yi nga xam ñu ngi koy jàng mën nañ cee dolli sax chinois parce que loolu moo ànd ak jamono kon jàpp nañ ne la réforme de la langue également ou la réforme des langues d'apprentissage ou des langues à apprendre à l'école kooku tamit war nañ ci xar sunu san tànk tubéy au niveau sur la première étape pour que xale bi ñu gën ko jege fekk si ko ci langue bi nga xam moom lay làkk ci këram di ko làkk ci ko koñam di ko fowee mu dale ko parce que amul benn réew boo xam dafa développé ci kàllaama jàmbur kooku ay réew def nañ ko fi yoo xam ne actuellement ñun Sénégal ñoo leen rawoon te aujourd'hui dans les classements sérieux dans le monde comme le classement PISA ak le classement réew ñi ngi ñuy yoo xam ñun ñoo leen rawoon foofu kon jàpp nañ ni Sénégal yooyu war na ko def déglu jàngalekat yi au niveau de du préscolaire élémentaire ñu def réforme yi nga xam moom moo war a am seen euh, réforme yi def ci élémentaire bi aussi ak yu bari yoo xam ne ñu ngi ci ci kër curriculum bi surtout jàngalekat yi ñu bëri ci élémentaire bi nee nañ d'accorduñ ci parce que ni ñu ko tëralee mi ngi yàq njàngum Sénégal xale yu bëri mënatuñoo liir te actuellement dafa feeñ également ci bu jógee ci étape boobu ba dem moyen secondaire bi yooyu yëpp ay réforme la yoo xam ne war nañ ko dem toog waxtaane pour ko defee ñu soppi njàng mi loolu tamit lu am am solo loo xam ñun suñ syndicat dañ koy porter beneen bi nag mooy ñu reverser ñi nga xam ñoom lañ tuddee les mets dans le corps des PCMG en EPS kooku tamit vraiment yeexital bi ci am ñun comprendre ko ak di jéem wut ab formation 14 mois boo xam ne dañuy yeexal euh, formation euh, bi pour que xal pour que jàngalekat yooyu ñu bëri ci ñoom dem retraite parce xam nañ ni ñoom gouvernement bi xam nañ ñu bëri ci ñoom MEPS yi dañoo âgé bu ñu fi indee ay formation am na ñoo xam ne mënuñu terminer formation bi bu ko defee ñu recalé leen ñu mën leen a bàyyi ñu dem retraite comme des MEPS kooku jaay doole la bu ko defee ñu yeexital ñu ànd ci ay yeexital aussi yoo xam ne ñu bëri ci ñoom daañu dem retraite alors que kenn du leen euh, euh, reversé dans le corps de des PCMG en EPS donc jàpp nañ ne loolu jaay doole la euh, équivalence caisse EPS bi également vraiment ñu ñu ñu ñu régler ko définitivement parce que loolu aussi c'est une revendication légitime parce que ñi nga xam ne si dañu am seen KS en EPS dañ leen war a reclasser comme des PEPS kooku tamit euh, vraiment warta am benn jafe-jafe bu ci am te actuellement ñoom ñëpp ñu ngi am une carrière plombée parce que tout simplement état Sénégal mooy indi ay tappale kooku ñoo ñu aussi jaay doole bi ñu leen di jaay doole mu dakk kon loolu aussi c'est un problème très sérieux boo xam ne ñun dañu bëgg ñun ñëpp ñu àndandoo taxaw ci liñ ci war a taxaw état bi aussi mu àdd ci grève bi nga xam ni moom la MEPS yi nekk di def depuis Euh, njàng mi démarré ci deux mille vingt deux ba léegi ñoom ñi ngi xeex ci dëgg pour que vraiment état bi wut ay saafara ci li nga xam ne mooy seen i ñaxtu te ñaxtu boo ci jël ci dëgg lañ ko teg surtout le reversement des MEPS dans le corps des PCMG en EPS donc loolu aussi mënatul a xaar te li ñu gëm ñun mooy dans le cadre de euh, de euh, cadre bi nga xam moom lañ créé actuellement ci collective yi nga xam moo am ci njàng meeg njàngale mi dinañ teg ay plan d'action pour que ñëpp ñi nga xam ne war nañ leen a taxaw ñu mun leen taxaw parce que loolu également euh, moom mooy li ñëpp di xaar mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy ay mise en position de stage ñu mën leen a permettre ñu dellu à à l'école de formation ñu former leen ci diplôme académique bi ñu yore parce que diplôme académique bi ñu yore romb na diplôme bi ñuy jàngale actuellement ci école bi kon ñoom aussi ñi ngi xaar pour que ñu permettre leen ñu dem en mise en position de stage te ñu bàyyi seen tàppale yi ak nombre dérisoire yi ñu leen di jox ba noppi dañ koy sélectionner sax comme les deux cent dix huit te mënuñu démarrer seen formation alors que la formation à distance mën na presque résorber euh, tout le stock que nous avons en mise en position de stage kooku tamit wax dëgg yàlla bu dee état bu sérieux lañ am et que ministère éducation nationale en rapport avec les autres ministères concernés war nañ mun jël toutes les dispositions nécessaires ñu bàyyi seen ak le ministère de l'éducation nationale ku nekk di ko jiñ sa morom à travers la FASTEF kooku également lu ñu war a dakkal la bu ko defee ñu mën a former jàngalekat yi beneen bi nga xam ne aussi c'est important c'est le reversement des METP euh, ñoom aussi ñu reverser leen dans le nouveau corps des PCMG euh, de la formation professionnelle ñoom aussi ñu régulariser seen situation parce que METP yi li ñuy demander du lu compliqué dañuy créer la corps pour reverser leen foofu ba noppi nag ñu créer en même temps euh, les passerelles yi nga xam ne moo am dans les différentes filières bu ko defee les METP situation de précarité bi nga xam moom la ñuy dugg dund également dans l'enseignement technique et la formation professionnelle loolu aussi mu jeex parce que ñoom ay jàngalekat yu xarañ lañ comme ñëpp di def seen liggéey kon li des mooy ñu éteindre sa corps là des METP comme ni ñu war a éteindre le corps des MEPS ñoom ñaari corps yooyu yëpp nga xam ne c'est des corps de précarité ñu jëlee ko fi. ñu tegaat leen ci yoon bu ko defee jàngalekat yi gis seen bopp en plus de motivation gën a mën a def seen liggéey correctement lii la ñuy demander état du Sénégal en rapport entre le ministère de l'éducation nationale ak ministère de la formation professionnelle ak les autres ministères yi xam si ñoom ñoo war a intervenir ci loolu ñu mën a def euh, vraiment liggéey bi ñu war a def pour que vraiment ñu créer euh, le reversement des METP et la création des passerelles yi nga xam ne si moom am na ci filière yu bari yoo xam ne identifié nañ ko bu ko defee vraiment jàngalekat yooyu ñu gën leen jox seen gëdd loolu aussi euh, lu ñu war a taxaw la beneen bi nag mooy aujourd'hui Sénégal 5000 enseignants yi mu jël ñi ngi ñaxtu loo xam ne ci dëgg lañ ko teg parce que 5000 enseignants yi daf ci am ñoo xam ni dañoo amoon diplôme professionnel nekk ay instituteurs ak ay professeurs ñooñu amoon diplôme professionnel nekk ay instituteurs ak ay professeurs déposé après un an de stage comme ni ko loi bi waxee def nañ déjà un an yu teg te déposé nañ seen i dossier d' intégration parce que am nañ seen i diplôme professionnel ñuy instituteurs yi nga xam si ñoom ñoo nekk actuellement des MC euh, parmi les mille enseignants wala les professeurs contractuels yi bokk ci 5000 enseignants yi am nañ seen i diplôme professionnel kon li ñuy xaar rek mooy état Sénégal euh, enrôler seeni i dossier rapidement ñu defaral leen ay projet ñu génne seen acte d' ñu dugal leen dans la fonction publique comme ni ko état Sénégal yàgg defee ñuy taxaw nag di téye seeni i dossier au ministère de l'éducation nationale bloquer seen i dossier naan leen dafa am décret bu ñuy xaar à la bu war a jógee présidence la république loolu jaay doole la ak salfaañe ak yeleefu jàngalekat yi ko kenn du ko fi nangoo tey kenn ko fi nangoo ëllëg donc nañu enrôler nu mu gën a gaawee les dossiers des MC et PC yi nga xam ne ci 5000 enseignants lañ bokk ñeneen ñi également ñi nga xam ne ay MC lañ yoo xam ne def nañ seen formation ci instructeurs yi nga xam ñoo bokk ci 5000 enseignants yi te ñi ngi xaar seen i résultat ñu gaaw génne résultat yi pour que ñoom it ñu gaaw génne seen i euh, seen seen arrêté pour que ñu mun leen dugal dans la fonction publique ñu aussi mënatula xaar nañ bàyyi seen yabaate bi ak seen tappale yi beneen bi nag mooy ñi bokk ci 5000 enseignants yi te war a dem formation nga xam ne ay diplôme académique lañ yore bokk ci 5000 enseignants yi ñoom tamit ñi ngi xaar ñu former leen ñi ci nekk ay professeurs dans les collèges et Sénégal na leen leen yóbbu formation ci nu mu gën a gaawee comme ni ñu yóbboo instituteurs formation yi bokk ci 5000 enseignants yi ñu yóbbu former leen bu ko defee ñoom ñu mën leen a ñu mën leen a enrôler rapidement ñoom ñëpp ñu régulariser leen parce que jàngalekat yi sax doyul faf juróomi junniy jàngalekat yooyu ñu jëloon bi ñu ko jëlee ba pare ñëpp dañu yaakaar ne yëf yi sotti na alors que jàngalekat yi ñu moo tax ren li ñu jël matul ay ay ay lu mat 275 euh, euh, enseignants de l' élémentaire lu mu tekki. loolu amul benn njariñ bu mu mën a ànd ci njàng mi donc leen jàpp mooy njàngalekat yi doyuñu kon nan yokk lim bi nu mu gën a gaaw mais ñi fi nekk nii te jël nañ leen ba pare nañ régulariser seen situation bala ñuy am sooxe ci njàng mi beneen bi mooy ñun tuddee ay chargés de cours les chargés de cours mooy ay instituteurs yoo xam ne am nañ ay diplôme académique yu kawe yu leen permettre ñu jàngale euh, ci euh, collège yi ak ci lycée yi lu mu néew néew am nañ baccalauréat pour mën a jàngale ci collège yi am nañ ay licence ak ay master 2 yoo xam ne permettre na leen ñu jàngale ci lycée yi ak ci collège yi ñu bu ñu demee ba jaaxle ci IA yu bëri wala ci IEF yu bëri dañuy ñëw woo leen ne leen am na sax ñoo xam ne amaguñ seen CAP CDMC ba léegi nii ñu def leen ay chargé de cours ba noppi nanguñu régulariser seen situation donc ñu ci nekk ay MC nañ leen leen yombalal ñu am seen CAP parce que ñu ngi leen yóbbu ci ay collège ak ay lycée ñu fay jàngalee en tant que chargé de cours kon ñoom dañ leen war a yombalal rapidement ñu def seen CAP pratique bu defee ñu mën a ñu mën a ñu mën a dem euh, vraiment ci moyen secondaire bi ñu gé ñu former leen ñoom it ñoom les chargés de cours bu ko defee ku ci nekk ci diplôme bi nga yore sa diplôme académique bi nga yore ñu yóbbu la ci en euh, à l'école de formation ñu former la nga génn ñu reclasser la comme professeur dans ton corps d'accueil ku ci war a nekk PCMG nga nekk ko ci war a nekk PM nga nekk ku ci nekk war a nekk PS nga nekk ko ci war a nekk euh, KMTP nga nekk ku ci nekk war a nekk KSTP nga nekk ko loolu la ñuy xaar ci nguurug Sénégal donc lu ñu li ñu gëm mooy il faut ñu respecter jàngalekat yi par rapport à leur droit beneen bi également mooy ñi nga xam ni euh, ñoom lañ tuddee ay PC aujourd'hui am na ay PC yu bëri yoo xam ñu ngi leen di bàyyi ci école yi ñu nekk ay euh, professeur de collège wala ay professeur de lycée def ay dix ans ñii quinze ans ci école yi te amuñu benn formation boo moom lañ leen formé te ay jàngalekat yu xarañ lañ ñu mucc ayib aujourd'hui man ci sama tournée bi rencontré naa au lycée de Podor ak euh, euh, au au niveau de Medina Njaaj bi ay jàngalekat yoo xam ni dañoo nekk di jàngale pendant très longtemps ñu def leen ay contractuel alors que jàngalekat yooyu dañoo bokk ci jàngalekat ya gën a xarañ ci école ba bi ma demee lycée Podor fekk fa ñaari jàngalekat yoo xam ne jàngalekat yi dañ lay wax ne la ñaar ñii li ñuy liggéey ñu bëri ci ñun liggéeyuñ ko fi administration bi nga laaj leen ñu ne ñaari jàngalekat yi nu am kenn ëpp leen euh, euh, njariñ ci ecole bi ay résultats yu mucc ayib la ñuy am ñu bëgg leen a bàyyi foofa def leen ay contractuel à vie ñu nara a retraité comme contractuel parce que kenn ki ne ma def naa fukki at ak ñett ki des ni ma def naa fukki at ak ñaar am ñoo xam def nañ fa juróomi at ñii juróom-benni at lii jaay doole la. donc te loolu am na ci ay PC yoo xam dañoo demoon formation ñu téye leen bàyyi leen ci classe ñuy jàngale te nanguutuñ ñu jàll ñu bëgg leen a téye comme des PC à kooku mënul nekk ñi ci mos a def formation te seen formation àggul nan ko àggale ñi ci mos a def formation ñu ne leen jàllu leen nan leen leen joxaat une autre chance pour que ñu delluwaat à l'école de formation pour génn comme comme comme professeur titulaire mais mënuñu bàyyi ay jàngalekat di def seen liggéey correctement ñu bëgg retraité comme des contractuels donc professeur contractuels yi nekk ci lycée yi ak ci collège yi dafa ay limu at yu bari nañu njëkkee ci ñooñu parce que ñu ngi commencé âgé ñu yóbbu leen formation pour que ñu mun leen reclasser bu ñu génnee ñu def leen vraiment euh, ñu xool nu ñuy def sax ba at yi nu ñàkk ñu xool nu ñu koy dab dabaatale pour que ñu bañ a nekk ay décisionnaires d'ailleurs nous demandon la suppression du corps des décisionnaires kon suñ defee loolu du am benn problème kon li ñuy xaar ci ñoom mooy PCA vie yi ñu bëgg a créer ci njàng mi ñoo xam ñu ngi jàngale ay lu ëpp fukki at nekk ay PC kooku mënatu la continuer kooku nag ministère bi jël ay responsabilités en rapport avec donc les services de l'État concernés dans les deux autres dans les différents ministères surtout la FASTEF pour que ñu former leen nu mu gën a gaawee dans toutes les filières bu ko defee ñu jeexal euh, vraiment ces PC la yi nga xam yàgg yàgg nañ ci système bi te kenn formé gu leen bu ko defee ñu mën leen a régulariser kooku c'est une demande forte des enseignants te ñun dinañ ci xeex lépp lu ñu mën pour que gouvernement bi dem dans ce sens que le ministère de l'éducation nationale jël ay responsabilités beneen bi nag mooy ñu réformer les grades parce que les instituteurs bala ñoo plafonné day yàgg. grades yi dafa bëri ba jéggi day wa kon nañu réformer les grades pour que instituteurs yi mën a plafonner rapidement loolu lépp ay tappale la et puis ñu supprimer ce qu'on appelle euh, la euh, euh, la disposition sur les 60 pour cent des promouvables loolu ay tappale la 60 pour cent tegul fenn nga ñëw ñu ni cent personnes yu nekk ci même grade bi dañoo war a jël 60 yi ñu jàll 40 yi dañuy redoubler te loo yàgg loo gën a redoubler sa carrière di gën a plombé boo demee war a plafonner doo plafonner loolu teguwul ci dëgg teñ def grade yu bëri donc nañ supprimer grade yu bëri yu nekk au niveau du préscolaire élémentaire tegul fenn ci dëgg kon nañ réforme nañ def la réforme des grades nañ deforme def la réforme des grades bu ko defee grades yi ñu teg ko ci yoon lii mooy dëgg bu ko defee ñu permettre aux enseignants donc surtout euh, vraiment les instructeurs ñu mën a plafonner à temps kooku c'est une réforme très importante bu ko defee ñu dindi 60 pour cent yi képp ku am note administrative bu baax soo demee euh, avancement au choix nga mën a jàll mais am 19 99 ba pare ñun la yow doo jàll parce que 60 pour cent ci sa grade ñoom ñooy jàll kooku yëfu tappale la ko kenn waru ko fee nangu tey kenn waru ko fee nangu ëllëg lool moo tax jàngalekat yu bëri duñ plafonné à la retraite te loolu teguwul ci dëgg c'est la même chose tout à ci euh, les chargés de cours les chargés de cours ñu ngi demandé ñu jox leen une mobilité di leen permettre ñu dem mu ñu mën a compétir au mouvement national nañ changer le guide du mouvement national bu permettre aux chargés de cours ñu mën a compétir au niveau national mais ne chargé de cours bi yow sa région rek nga mën a compétir mais mënoo compétir au niveau national kooku jaay doole la kooku tamit kenn du ko fi nangoo tey kenn du ko nangoo ëllëg mun ñu téye chargé de cours yi parce que ñoom ñoo am jafe-jafe ba jël ay chargé de cours kon mun ñu imposer chargé de cours yi ne lu ngeen génn seen région nañ permettre chargé de cours yi ñu compétir ci mouvement national bi di mën a remplacer eh, di mën a remplacer yeneen yi ñu permettre leen donc ñu bouger kooku war nañ ko def ci guide bi bu ko defee enseignants yi mën a am mobilité ba noppi seen IRD bi ñu gaaw a génne seen acte pour que ñu mën a bénéficier wu ci IRD bi ñoom chargé de cours yi parce que ñu bëri ñu ngi nekk chargé de cours dañuy toog ay un an deux ans du bénéficier ci seen IRD kooku tamit teguwul fenn loolu jaay doole la beneen bi nag bi am si mooy vrai njombe bi am dans le système éducatif mooy les passerelles professionnelles aujourd'hui li nga xam ni moom moom la gouvernement bi appliqué à travers les passerelles wala li ministère éducation nationale di appliqué à travers les passerelles ay tappale la passerelle professionnelle man je fais partie ñi nga xam ne ñoo ngi ci doon waxtaan en 2006 2007 à l'époque ce qu'on appelait passerelle professionnelle ak li nga xam ne moom lañu nekk di def bokkul passerelle professionnelle warta am concours c'est un examen professionnel c'est pas un concours alors que ñoom dañuy def ay concours di jël ay quotas yu ñàkk fayda di ko imposer euh, les professeurs du moyen secondaire lool du yoon dañu war a appliquer les passerelles comme la ñu waxante woon en 2006 2007 en 2006 2007 il était convenu entre nous et le gouvernement même su fekkee bindu binduñu ko woon ci benn protocole d'accord waxtaan yan doon waxtaanee mooy nañ mettre en place des passerelles professionnelles dans le moyen secondaire ba nga xam ni ki nga xam ni professeur la su defee un certain nombre d'années ci njàngam njàngale mi comme PCMG. su defee par exemple huit ans wala dix ans on n'avait pas euh, un consensus sur la dure mais ñii dañ doon wax huit ans ñii ni dix ans mais même bu dee dix ans la su jàngalee dix ans comme PCMG dañ koy fekk ci classe am ñu mu éligible à la passerelle ñu inspecté ko ci classe am suñ ko inspecté ci classe am su jàllee inspection ñu reclassé ko comme ñu reclassé ko comme PM on valide ce qu'on appelle les acquis de l'expérience cette validation des acquis de l'expérience mooy remplacer le diplôme de la licence bu ko defee moom du soxla def concours dañ boo defee dix ans rek tu es éligible à la passerelle professionnelle si tu étais PCMG dañ lay fekk sa classe inspecte la suñ la inspecté soo jàllee sa inspection nga xaar sa sa sa sa arrêté mu génn su génnee ñu reclasser la comme PM en validant les acquis de l' expérience donc les dix ans yi nga jàngale parce que jàngale expérience la ki nekk am également su defee dix ans ñu ñu ñu ñu ñu ñu fekk ko classe am mu éligible à la passerelle ñu inspecté ko dans sa classe mu bu jàllee inspection ñu reclassé ko comme PS mu valider les acquis de lexpérience ki nga xam ni PS la également ñu créer un autre corps boo xam ne duñ ko bloqué ni ko PS nga à vie nga xam ne yow boo nekkee PS mën a too doon leneen mënoo bénéficier de quoi que ce soit mënatoo génn ci corps bi nga nekk ñu créer un autre corps boo xam ne moom aussi dañ koy permettre au bout de dix ans de pratique de classe ñu inspecter ko dans sa classe moom la PS su jàllee inspection mu jàll ci beneen corps plus élevé moo am si moom mooy corps mooy nekk corps plafond bi donc loolu également dina permettre que PS buy dugg ci njàng mi en tant que PS dina am ambition xam ne dans dix ans moom bu fekkente ni jàll na inspection mun na changer de corps c'est la même chose pour le PM c'est la même chose pour le PCMG loolu mooy ce qu'on les passerelles professionnelles mais ay passerelles professionnelles yoo xam dañ cay def ay concours ak di joxe ay quotas yu faible loolu c'est pour bloquer les enseignants amul benn njariñ syndicat ya ko nangu woon nag dañ leen rule dans la farine te loolu ay tappale la kenn waru koo nangu ñun li ñu gëm mooy dañuy taxaw xeex pour que ñu appliquer ce qu'on avait dit en 2006 2007 mooy que les passerelles professionnelles c'est n'ont jamais fait l'objet d'un concours, mais l'objet d'un examen professionnel en validant les acquis de l'expérience. C'est ce passerelle professionnelle. Donc, qui est authentique de faire pareil pour travailler pour que jàngalekat yi les gens qui ont qui moyen secondaire puissent bénéficier correctement des passerelles professionnelles. Sinon, nous beaucoup de gens qui ont retraite avec leur corps initial, qui ont été lors du deug Benen bi nak moy ñu mëna am les euh, les institeurs bu ñuy génn ci eh, école de formation yi ci CRFP yi ñu génn avec le CAP complet bu ñuy génn waratuñu dem ci ci terrain bi ñu leen di xaarloo ay trois ans ay 4 ans pour commission bi ñëw seet si leen lii yoon mooy dañ leen a war a permetre ñu ñu génn daal di mën a dugg euh, directement euh, vraiment dans la fonction publique bu ko defee euh, duñ fa nekk di xaar ay commission loolu mooy yoon. parce que loolu ça permet que ñu gagner du temps mais beaucoup d'entre eux dañuy perdre du temps xaar seen commission commission bi su ñëwee seen PV yi di jël temps bala ñu koo signer bu PV bu ñu ko signer ñu xaar seen arrêté bu arrêté bi tamit di xaar temps bu yàgg bu paree ñuy doog dem xaar intégration avec euh, l'acte d'intégration tout ce temps là day tax ñu perdre du temps donc euh, ñoom. Euh, ñi nga xam ñoo génn ci CRFP yi donc loolu du yoon war nañoo mën a génn directement avec leur CAP complet bu ko defee bu ñu génnee ñu bénéficier directement à au bout de an de stage ñu bénéficier de ce qu'on appelle l'intégration maintenant beneen bi mooy li nu gëm après notre tournée ak condition yi nu gis dans des zones comme Demet nga xam ne ils sont dans la frontière de traverser ay ay ay ay ay désert pour mën a dem ci seen seen seen liggéeykaay ñu traversé égal dem ci ay zones yu mel ni Siwre Càmbe dem ci ay zones yoo xam ne dafa metti ba ku fay dem xam ne fii metti na te loolu noonu mu amee ci euh, euh, iyaabu euh, iyaabu Matam noonu la amee ci IA yëpp IA boo ci dem am na jàngalekat yoo xam fañ nekk c'est des zones déshéritées zone déshéritée nag Sénégal lañ ci jàpp mooy yokkal la ay points te temps yi sax wàññi nañ points yu bari avec le guide du mouvement national donc aujourd'hui li ñu gëm mooy war nañoo mën a Euh, permettre aux enseignants yi nekk dans des zones déshéritées ñu am une indemnité spéciale d'éloignement euh, et de zones déshéritées pour permettre enseignants ya fa nekk ñu am au moins benn sentiment de euh, de considération bu ñu am ci ñoom ba nga xam ne au moins daañ muñe conditions yu métti yenn nekk euh, li nga xam moom lañ leen di dàmpe kon tamit ñu am loolu lu am am solo la pour njàng mi njàngale mi beneen bi nag mooy ñu revoir le système de rémunération dans le sens de l'équité naam yokk nañ salaire yi aujourd'hui ñu ngi yokk salaire yi ba noppi indi seenu benn ligne bu ñu tuddee la ligne 623 muy bouffer les les les salaires des enseignants avec des impôts trop élevés kooku tamit kenn du ko fi nangoo tey kenn du fi nangoo ëllëg nañ arrêté la ligne 623 bu ñu bëggee jàmm ba noppi ñu xoolaat salaire yi dans le sens de parce que li ñu waxoon du yokk salaire yi mais réviser le système de rémunération ñun jàngalekat dañoo defan dañ ñoo yokkal lu bari bu ñu xooloon bulletin de ñeneen ñi nga xam ñun ñoo leen gën a gradé daañ xam ne ñun dañ am du dara par rapport ak ñeneen ñi salaire yi dafa yokk dans un contexte d' mooy yokk na waaye inflation dafa am mooy actuellement lu luñ la jox ci loxo ndeyjoor dañ koy nangu ci loxo càmmooñ avec des prix trop élevés sur le marché kon nag taux d' inflation bu dee dafa élevé salaire yi dafa war kon aujourd'hui li ñuy demandé mooy ñu yamale liggéeykatu état bi ñu fexe ba vraiment ñi nga xam ne ñoom ñoo tolloole ay euh, niveau bi ñu leen recruter ñu yamle ay salaire loolu mooy yoon booy jiite réew da ngaa war a yamale ñu am ñoom ñoo lay liggéeyal te kii àtte ak kiy faj ak kiy jàngale ñoom ñëpp say ndaw lañ nekkal la fi nekkal fi askan wi kon waroo def bot di ci seen biir kon loolu tam d'accorduñ ci salaire yi nañ ko xoolaat ñu réviser ko conformément au dispositions de la loi 61 33 pour que ñu yamale liggéeykatu nguur gi beneen bi nag mooy ma leen di wax ni ci dëgg la ñuy taxaw lépp li nga xam ne ñoo ngi koy xeex ñoo ngi koy xeex ci dëgg dañu bëgg vraiment ci lii nga xam ne moom lañ jëm muy élection de représentativité yi nga xam ne mois de mars lañ jëm le 6 le 7 le 8 et le 9 mars ñu war a dem ci ay élections yoon dañuy tànn ñi war a toogal nguuru euh, ñu war a toogal toog ak nguuru Sénégal toogal fa jàngalekat yi ñun Cusems authentique ñu woon. ci ñun tànnoon en 2017 parce que booba suñ syndicat juddoogul woon naam ñun bokkoon nañ ci élection yi man Damboj bokkoon naa ci au nom de du syndicat bi nga xam ca laa nekkoon ñu salfaañe teg si ma taxaw ne ànduma ci ba tax ñu tasaaroo nekk ñaari syndicat mais aujourd'hui jàngalekat yu bëri d'accord nañ ni ñun position bi ñu am ci dëgg lañ taxaw te position bi ñu nekk taxawal jàngalekat yi moo ñu tax a jóg kon jàngalekat yi jël leen seen responsabilité ngeen votel massivement le CUSEMS e A pour mu dem ci table de négociation bi bu Cusems authentique demee table de négociation yi dambuj dina dem toog ci table de négociation yi nekkal leen fa lii nga xam ne wax naa ko fi ak yeneen poñ yoo xam munu munumaa lim lépp ci benn ci ci benn waxtaan dinañ taxaw foofa nekkal leen fa tuñ ca te duñ ca def benn tappale ñun nous ne sommes pas dans la participation responsable ñun sunu syndicat duñ nangu mukk ñu nuy ger duñu nangu mukk ñu nuy jox ay ay nomination au palais de la république pour ñu pour ñu nekk fa di ak di nekk fa di jàppale nguur gi pour que jàngalekat yi bañ a grève wala jàppale nguur gi pour que jàngalekat yi mën a muñ seeni revendication ñun nekkuñ ci tappale yooyu on n'est pas dans la participation responsable kon bu leen fi nekk tey di dem di dooleel ay syndicat de la participation responsable ay syndicat yoo xam ne nguur gi lan àndal nga xam ne am na ci syndicat yoo xam bi ñuy def seen congrès euh, nguur gi jàpp la leen ci seen congrès di jël ay xaalis di leen jox pour jàppale leen loolu bu amee war nañoo xoolaat suñu bopp xam ne ñun jàngalekat ñoo war a jël suñuy responsabilité mënoo taxaw di xeex ba noppi di dem di nekk xaritu ministre bi ñun mënuñoo taxaw di xeex ba noppi ministre bi bu ñu bu ñu kenn du dégg ñu tudd ministre de l'éducation nationale ci seen kàddu syndicat yooyu kon war ngeen a xam yan syndicat lañ doo leen dégg mukk ñu ŋàññalu ministre de l'éducation def te loolu mënta nekk parce que sooy défendre ay jàngalekat taxaw ak ministre de l'éducation nationale te doo ko tudd mukk yenn saa yi sax da ngay kañ ministre de l'éducation naan li mu def baax na surtout ñi nga xam danoo jàpp ne ñoom li ñu def nii mënut ñoo def lu ko nag jox leen ñeneen. wala même bu ngeen dee euh, bàyyi ñooña foofu wala ñenn ci ñoom ngeen doll ci ñeneen ñoo xam ne bu ñëwee danañ gën a renforcer la table de négociation donc bu fekkente ne table de négociation bi renforcer wuñ ko ñun jàngalekat yi daañ ko rëccu aujourd'hui nag mbir mi lii la ku am fukki poñ euh, ci téeméeri jàngalekat yu voté bu fekkee am nga ci téeméer bi fukk yu la voteel da ngay dem fekke fa nga xam ne fa la ñuy nase ak di nocc nga xam da nga bokk ca ñay waxtaan pour njàng meeg njàngale mi nga toogal fa jàngalekat yi ñun kisam su authentique nag ci élection yi ñu nar a tudd kisam sa a war nañoo bokk ci table de négociation gouvernement bi nag bu ñoon ñun duñu bokk ñu ngi ñuy diaboliser di ñu waxal loo xam dara du ci dëgg bu ñu taxawee di wax ci réew mi ñu ne non ñii dañuy politique ñun ñu taxaw ni ab leader a ngi fi ñi ngi koy jaay doole kenn waru koo jaay doole am na droit nekk candidat loolu ana lu mu ànd politique. ñun kuñ fi mos a jaay doole ci réew mi dañoo taxaw président Macky Sall mii tey bi ñu koy jaay doole en 2009 ñun dañoo taxawoon ne dañ koy jaay doole na nguuru président Abdoulaye Wade euh, arrêté tey jii tamit nguuru Macky Sall gii di jaay doole ay leader surtout leader bi nga xam ñëpp xam nañu suba ngoon ci moom lañ nekk di ko jaay doole ñu taxaw dénoncé ko te tey jii yàlla jox ñu dëgg parce que dossier ba taxaw ñu taxaw di dénoncé te yàlla may nañ ci dëgg naam ñu ngi jéem a jaay doole def leen neex mais taxaw nañ ci dëgg te dëgg rek tax ñu ñu ñu tax am taxawaay kon nag képp koo xam day jéem a ruube naan kii li muy def c'est des positions politiciennes c'est pas la vérité ñun nekkuñ ci benn position politicienne dañoo nekk ci position yoo xam ne naam c'est des positions politiques parce que un intellectuel bu amul des positions politiques wax ni lii du yoon lii yoon la lii nañ ko baaxal lii dafa bon loolu boo ko deful yow lan ngay def parce que ab intellectuel du taxaw di seetaan di def leen l'indifférence naan réew mi buy tasaaroo ak réew mi bu yàqu sama yoon nekku ci un intellectuel day jël ay responsabilités am loolu lañ def lépp lu xew ci réew mi ci wax sunu xalaat di wax ci njàng mi di wax ci leneen ak leneen parce que un pays c'est un tout kon nag lii ñu ñuy def bokku ñoom ñi nga xam ne ñoom dañuy tappale ci suuf parce que olof yi dañuy seetaan ci sot la bokk munoo yore ab syndicat ñuy jaay doole ab leader ci Sénégal wala ñuy jaay doole ay nit wala ñuy salfaañe ak yelleef sénégalais yi nga ne sama yoon nekku ci kon bu ëllëgee yow bu nday jaay doole sénégalais yan yan doon jaay doole nga ne sa yoon ci ñoom it yow jàngalekat bi kon bu ëllëgee bu ñu lay jaay doole sénégalais yi tamit dañ naan la yow ba ñuy jaay doole da nga ne woon sa yoon nekku ci kon ñu nit yow bala nguur gi di jaay doole suñu yoon nekku ci kon nag bu ñu bañee réew mi mel noonu kon lépp dul yoon ñun ñëpp ñoo war a àndandoo xeex ko ñun ñëpp ñoo war a àndandoo dénoncé ko loolu mooy rôle intellectuel et ñun ay intellectuel lañ ñun jàngalekat yi ñu ñooy tàggat sénégalais yi kon mun ñoo seetaan réew mi di yàqu kon lii mooy sunu taxawaay nekkuñ ci leneen kon nguur gi bëggul ñu dem à la table de négociation parce que xam ne bu ñu fa demee yii ma fi lim ak poñ yoo xam ne limuma leen dinañ fa taxaw porte le combat au non de l'école sénégalaise au nom des enseignants pour que ñu bàyyi càpp bàyyi tappale tappale yi teg ko ci dëgg donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen ñaaxaat yéen ñëpp ngeen laxasaayu naam gis nañ ni ngeen ñuy jubloo yéen ñu bëri ci yéen di ñëw di adhéré ci Cusems authentique ak di waajal pour voter Cusems authentique ci élection mois de mars yi le 6 le 7 le 8 le 9 par voie électronique ci Mirador kon yéen ñëpp dem leen wuti ay compte Mirador ndaxte ku amul compte Mirador bu mois de mars ñëwee ci élection yi doo mën a voter te nekk jàngalekat sa morom yëpp di voter yow voter loolu baaxul kon ñi ngi xaar yéen ñëpp ngeen dem ubbi ay compte ngeen waajal élection mois de mars yi ngeen dooleel CUSEMS A mu bokk ci élection yi incha allah buñ demee taxawal leen fa ci seen i jafe-jafe pour que ay saafara man cee am bu ko defee bu ëllëgee yéen ñëpp ngeen xam ni lañ dige woon ak yéen def nañ ko ci loolu lañ taxaw taxawuñ ci leneen ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam.